juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ci télévision Futur Média mbokk yi daleen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki euh, dina bokk ni ki tey ji nag yemoo ko gaawoo ji euh, tamxarit wala bokk Ashura imam bu grande mosquée bu Liberté 6 moom imam Mokhtar Ndiaye daal dina dikkaat euh, ci solos li nga xam ne moom moo di bés bi liñ ci digle waaye tam li nga xam ne rek moom la ñu ci ay wàllu inondation maanaam mbënn mi nga xam ne daal dinay sonal yenn ci ay gox goxaan yoo xamante ni ñu ngi fii ci réew bu Sénégal ca Tëngéej moom askan wa la ñu àddu moom moo di ak yàcc yàccaaral la ñu nemmeeku ci gouvernement bu euh, Sénégal yooyu la jamono ca Kaolack euh, jëriñ jile euh, di Serigne Mbaye Thiam nag amaloon fa ab doxu nemmeeku ngir xool yenn ci ay gox yoo xamante nii nag loru nañ ci mbënd mi naka noonu itam muy xam ne rek ne ay jéego ñu ngi koy def ci wàll wi ndax itam teg nañ loo xamante nii ma ngay manque ndox mi mbokki daañ ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne ñetti doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakke week-end juróom-ñaar fukk ak ñaari cas positif lañu ñu am euh, niki démb fanweer ak juróom-ñeent ci ñoom nag di ay cas contact moom coronavirus euh, tax na nag ñenn ci ay soxna nag daan dem kër docteur ngir rek xool ana yan pexe la ñuy nas ngir daal di soral euh, jur gi lu ni mel nag ginnaaw ab taxaw seetlu nag doonul loo xamante ni ñu ngi koy faral di gis ba tax itam ni ngeen ko gisee noonu réseau Siggil Jigéen daal di addu ci wàll wi mbokk yi daan ci dikk ni mu gën a yaatoo ne kiis ma dikk ñu jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko nu nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon nag ni ki tey ji ah, di gaawo yem mook bésum tam xarit imam bu grande mosquée ah, bu liberté sis nag daal dinay dikkaat ci li nga xam ne ah, moom moo di solo bés bi li nga xam ne moom lañ ci aaye wala bokk li nga xam ne digle nañu ko ñu teewlu imam Mokhtar Ndiaye ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba moo taataan ay kàddoom Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Médine n'est-ce pas ci la ko institué bi mu jógee Màkk ñëw Médine ci la institué Ashura ndax bi mu fa ñëwee dafa fekkoon yahud yi n'est-ce daan célébrer Ashura daan ko célébrer ngir lan ngir màggal victoire bi yàlla mayoon yonent yàlla Moussa ci kaw Firawna moo tax bi mu laajee nu wax ko loolu moo tax nuy màggal Ashura ñoom dañ ko daan woor n'est-ce pas daawuñu ci liggéey juif yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen yéen gënu yéen ma yey ci yonent yàlla Moussa ba tax na man tamit damay digal dama koy woor fukkeelu fan bi waaye itam digal sama xeet nu koy woor waaye nag pour wuuteeg juif yi moo tax mu ne woon dinaa woor bu mu fi yàlla bàyyee atum bisu juróom-ñeenteel bi teg si fukkeelu fan ba donc assura noonu la tëddee mais assura boo xoolee ba ci biir tam célébration yi day wuutee ndax boo demee tey ci ahlu shia lu mel ne Iran ak Irak ñoom bisu naqar la ndax ki doon rayoon kii du Hussein di ñaareel doom ci Fatima ak Ali donc mooy problème mu Karbala bi pèlerinage Karbala fa lañ ko rayee woon donc pour chahid yi ñoom dëgg yàlla naqar la feetu tiis la contrairement ci sunnisme ba nga xam ne moom jàppee ne Ashura du feet sax pratiquement moo tax xew-xew yi ñu amal yëpp presque du diine wérul ci sunna li ci wér daal mooy koor gi koor gi dëgg la doon si wax nañuy seeti malade rendre visite ku feebar def yooyu dagg wey tout ça yooyu yëpp yu baax la ndax ay jëf la yoo xam ne islam daf ko santaane mais quant à jagleel ko ci bésu assura tam wax dëgg yàlla nekkul xadis boo indi na ko mais nag ay su nangu ñaan la bisu njëlbeenu at da nga daan Imaam Mokhtar Ndiaye sa mbokk njaayaan yi ñu ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di euh, cere yi lii itam bokkoon naa ci loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar wàllu inondation euh, maanaam euh, mbënd mi nag sonal ñenn ci askan woo xamante ni ñu ngi ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal ba tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca Tëngéej nag di xamle ne ab yàcc yàccaaral la ñu nemmeeku ci seen ay jafe-jafe seen digganteeg nguur bu Sénégal ñu teewlu reportage bu seenu caam ak Ahmadou Bamba Samb nemee ko ci diwaan yu bëri lii di diwaanu Tëngéej nag muccul benn yoon ci ndoxu taw yi nga xam ne nii mi ngi nangu ci lenn ci ay kër waaye tamit ay mbedd mu doon bënd moo xam ne bi nag mi ngi bëgg a yàgg ci kàddu askan woowu nga xam ne bii mbir mi tey ji metti na leen lool. sonn rek sonn foo ko natt natt rek weesu na ko lii kenn mënu la ko wax chaque année nag ñu dig ñu dig boo xam ne duñu gis dara mi ngi nii chaque année nii la ñuy def dañ ñuy te du xasaw na ndox mi parce que nit ñi dañuy ubbi seen foos yi doo mën a defar sa kër tout le temps mi ngi nii ñun daal lii la ñuy vivre ndox yi di dugg mënoo vider sa foos vraiment lii moom dafa sax ruslu ñu ngi mel ni daal ñun suñu dëkk bi amuñu daal gouvernement lii moom doy na waa da ngay gis xale yi dañuy sëqat dañuy def lu ne yooyu siburu bi toujours chaque année day gën a bëri doy na waar daal li ñu mën a wax daal bëriwul lii daal vraiment gouvernement bi war na gis lii mu dimbali ñu parce que ñun sonn nañu ay mère de famille yoo xam ni dërëm boo am hôpital yaa ngi jaabante ak sa njaboot vraiment dafa ruslu sax lii moom dafa ruslu fii xoolal ndox mi xoolal salte bi vraiment lii daal mi ngi noonu mënoo defar ba mu set mënoo liggéey lu baax mënoo defar daal vraiment ñu ngi ñaan dimbal ci gouvernement mu yërëm ñu daal ñun mère de famille. waaw askanu tëngee ci di samp laaj sax moyens yi nga xam ne nii état dégagé ne ko ngir xeex ak mbënd mi. kenn dundutul yéen a ko gisandoo yéen ñëpp gis ngeen image yi ni demee. et pourtant dañu mettre en place un fonds de trent deux milliards pour la gestion des eaux pluviales ni ko gérer mooy ADN mais 32 milliards yooyu nañ def évaluation nañ def audit xool xaalis fan lañ ko dugal ñun de gisuñu ko te nit ñi sonn nañu mënuñu dundu situation yi ak li muy créer comme conséquence xale yaa ngi nii ñëpp a feebar ñëpp a feebar feebar boo yaakaar ne xale yi feebar nañ ko mag ñaa ngi nii aussi situation yi ñu nekk ay magum jëm a nekk seeni kër jël ay mool teg ko ci kaw mu mën di xal ñi di si tëdd pour ñu togg problème la mais vraiment il faut que état bi jël ay dispositions. gannaaw seen yooxu bale waxu askan ne nag dàquñu nag gën a taral nag lii di xeex bi ngir fexe nag ba ñii di autorités yi yëy yàbbi ci seen jafe-jafe bi nga xam ne nii daanaka. ca yooyu la jamono jëruñ jile moom euh, Serigne Mbaye Thiam nag amaloon ab doxu nemmeeku ca diwaan bu Kaolack ngir xool nag ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo loru ca mënd ma li mu xamle moom moo di ay jéego daal nañ ko ci def ndax itam yenn ci ay matuwaay euh, daal nañ ko fay tekk ci mel ni loo xamante nii rek day manque ndox mi Ibrahima Diame ak Faly Gueye la dénk ay kàddoom. lu jiitu lii di am jëloon nañu ay matukaay matukaay bu njëkk bi ñu jël mooy programme bu mag buy assainissement nekk fukki milliards ak juróom suñ ci boolee taxi yi ñi ngi koy def fi mu nekk nii yéen ci seen bopp gis ngeen liggéey bi ñu koy def muy euh, ci ci benn pàcc ci liggéey bi muy ñaari bassin boo xam ne bi benn bu mag a mag la bu 19500 mètres cubes ak beneen bu gën a tuuti bu 765 mètres cubes boo xam ne bii ñu ngi koy tabax léegi nag tabax boobu li mu pareegul moom moo tax ndox mi bi mu fa ñëwee pomp bi ko war a yóbbu yóbbuwu ko moo tax quartier yooyu daal di am ndox waaye ñi fa nekkoon ba nekk fa tey jii nee nañu biñ fa nekkee miiru kii bi daaw ko gis te fi mu nekk nii feeñ na donc ndox mi wàññeeku na bu baax a baax a baax loolu mooy xaaxun bi ñu njëkk a dem kon boog liggéey bi mu ngi dem foofu liggéey boobu suñ ko doon xaaj téeméeri xaaj juróom benn fukki xaaj yi liggéey nañ ko looloo tax sax ay jafe-jafe am téeméeri xaaj yi suñ ko liggéeyoon kon ndox du nekk xaaxul parce que ndox mi su ñëwee rek dafa am lu koy pomper yóbbu ko ci bande Daouzu mu dem ci géej bi. muy ONAS muy entreprise bi li nga xam ne moom la ñuy wax mooy suñu tegee ñetti weer ci ci deux mille vingt et maanaam mars deux mille vingt et liggéey bi dana pare. ginnaaw ndàngal Massindiane nag chef yu village nag bu commune bii di Ngongom nag ñoom ñoo daal di nangu seen ak forage ca ka nga xam ne moom moo ko jëloon di ak waa Aquatec ginnaaw itam ab dogal woo xamante ni daal nay dal ci ñooñee nag ndox mu tar ñàkkum ndox mu tar daal di leen di sonal ñu teewlu reportage bu Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. mu di chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Ngongom yum ñëpp ñoo takku ne dañuy dem ca forage ba jëlaat seen forage yoral bopp ñoom nag li leen mooy ay weer ngi nii forage bi doxatul. moom mi nga xamee ne bii moom la ñu joxoon ay forage ci réew mi yàq na suñu forage yàqu na léegi nag dañoo bëgg a nungu tey suñu forage loolu moo waral daje bi. nan lañ koy nungoo moo di ñun amuñu ndox tool yi ci réew mi yëpp yàqu na dëkk bi bépp yàqu na amatul jigéen ñi root nañu ci teen yi bu bëgg a dee. nangu nañu suñu forage bi dañuy ñëw fii taxaw ci forage bi ñi ko war a yor yor ko ñoom ak waa teg fu ñu xam ñu dem amuñu ci ñoom beneen soxla waaw. nga xam ne moo doon dawal forage bi dañ ko fa fekk jëlee ko fa jëlaat seen forage wante nag dinañu war a fay. facture Senelec bu seer seer. teg yoral nañu suñu xaalis boo xamee ne ci suñu kees la nekkoon ñu lebaloon ko ko mënuñu fay. wëlbatiku barki démb rek euh, Sénélec ñëw na fii mi ngi yor benn coupure quatre millions sept cent di ko bëgg a couper suñu euh, suñu. Euh, nekk beneen manifestation boo xam ne nii yëkkati nañ ko jëmale ko ci repreneur de forages ruraux di Aquatech ci région bu Njaareem. wante nag du bu mujj bi ndaxte tey ci suba si maire yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune rurale yu nekk ci Diourbel ñoom ñëpp ñoo nar a daje ca Njaareem waxtaanee problème mu ndox mi fii ci diwaan bi. jërëjëf Babacar Diouf cant ak njërëm neel na la ginnaaw goxooyo nag ñu jubali ah, ca université gason Berger ba nekk ca Ndar addu ci lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale bi nag ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo ñu ngi door wala bokk ñu ngi waajal bu baax a baax dellu ci li nga xam ne rek ah, moom moo di woowule université directeur bu kurus ak itam yenn ci ay étudiants nag demoon saytu woowule barab Pape Ibrahima fay di xamle ne bépp matuwaay woo xamante ni war nañ ko jël ci jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi fii ci mim réew koy jël naka noonu itam daañu utal ab barab boo xamante ku ñu nemmeeku ne rek da am li nga xam ne moom moo di mbas mi fa lañ lay daal di denc ñu teewloo ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ndogal yi nga xam ne université jël nañ ko yëpp dañ ko sukkandiku ci nan la ñuy def ba étudiant bi nga xam ni ñëw na ci biir université bi nekk en toute sécurité ci loolu moom moo tax protocole bi euh, je crois que ñun ñëpp donc am nañ ko restaurant am nañu seen protocole euh, hébergement am nañu seen protocole service médical étudiant benn bërëb bi nga xam ni bu nu amee laam-laami ndax kii dafa feebar lii ak lii moo ko dal am fi nga xam ni foofu nan lay def déjà identifié nañ ko ba équipe ko donc yooyu yëpp ñi nga xam ni moom mooy diglaayu autorité sanitaire yi mooy diglaayu commission sanitaire yi CROUS jël na ci ay mesures ba nga xam ni euh, étudiants yi dana nekk en bonne euh, sécurité mais tamit ñi nga xam ni ñooy liggéey ci biir université yi daan nekk ci euh, sécurité bu am solo ci wàllu aussi li nga xam ne mooy assainissement bi président de la république jëloon na ay mesures wax ñi nga xam ni kuréel ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi jox leen ay instructions pour que assainissement Université Saint-Louis ñu def ko eh, bokk na ci ministère enseignement supérieur bokk na ci ministère de l'eau et de l'assainissement ak ki nga xam ne mooy ministère des finances. ñu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam mbokk yi jàppale na ñetti doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu juróom-ñaar fukk ak ñaari kaa positif la ñu am fanweer ak juróom-ñeenti cas contact fanweer ak ñaar nag di ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee ñeent fukk ak ñaari cas grave la ñu am du ñàkk daan ci dikk suñu yeneen yoo xibaar mbas mi ak tolluwaayam ci réew bu Sénégal loolee waral nag ay soxna yu bëri nag ñu daal di nemmeeku eh, seen ay soxla ca kër docteur nag ñuy nasi pexe an na la ñuy def ngir daal di soril li nga xam ne moom moo di eh, njur gi lu ñu mel nag doon loo xamante ni eh, daanaka wonneeku na ndax itam mbas mi ba tax réseau siggil jigéen daal di nay addu ci wàll wi ndi am ndaje woo xamante ni amaloon nañ ko Fat Bintou Konté ak Amadou Ba ñoo ngi fa li nga xam ne UNFPA moom la yëkkati jëmale ko ci santé de la reproduction ci weer yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nekk na lu jéggi dayoo bi apparition coronavirus bi amee fii ci àddina ba tey li jëm ci wàllu planification familiale ak li nga xam ne moom moo ko wër dafa xaw a jaxasoo. mais euh, Nations Unies aussi xayma woon na ni dina am pandémie bi conséquences yi mu tëju bi ñu tëj njaboot gi ci biir kër gi dina am ay risques yu baree baree bari ci ay millions wu jigéen. mais dina am ay risques yu baree baree bari loo xamante ni ëmb loo ëmb la yoo xamante ni du yu ñu gënal yoo nga xamante ni yu ñu planifié la ci Sénégal sax ñeenti weer yi nga xam ne defoon nañ fi ak confinement remarqué woon nañu ne ay grossesse adolescente yu bari amoon na fi. ci loolu euh, bi ñu defee ab jéego euh, euh, organisation bu ñu naan GEP maanaam société civile bi xayma nañu. Euh, ñaari weer yi nga xamante ni Sénégal toog na ko ci biir kër gi wane ni li mu jur moo di euh, grossesse précoce yi dafa gën a bëri xale yi ëmb yu teel yi bëri na lool ci période boo nga xamante ni am na nekk nañu semi confinement ci kër gi moom pandémie coronavirus bi nag tax na ba xaalis bépp ba nga xam ne jëmale woon nañ ko ci wàllum santé dañ ko cee def ba tax ni santé de la reproduction nekkoon na jafe-jafe yoo xam ne amoon na ko jëmale ko ci wàllu liggéeyam. Euh, bi pandémie bi ñëwee gouvernement yépp kenn ku ci nekk dafa tal leneen lu dul toppatoo wër gu yaramu njur ak planification familiale dañu daal di xalaat nan la ñuy orienter yi ci xeex. jàngoro bi Sénégal moom dafa ni dafa déclaré guerre xam nga ku déclaré guerre dootoo talati ni santé de la reproduction ah effort bu mag a mag li ñu amoon a kës néew ci alal ñu dajale ko yépp def ko ci guerre bi guerre bi nag c'était pour prévoir. moo ne de am na loi boo xam ne fii ci Sénégal taxawal nañ ko fii muy encadrer lépp lu jëm ci question liée à la santé de la reproduction ak tamit ci planification familiale mais boobee loi nag fi mu toll nii amul degré d'application. am nañu loi bu ñu naan loi de 2005 loi sur la santé de la reproduction defe naa ne yéen ñëpp dégg ngeen ko parce que réseau Siggil Jigéen ça fait cinq ans ñu ngi waxtaan ci loolu décret bi 2005 la woon boobu Abdoulaye Wade moo fi nekk loi bi. ba ñu ko jëlee ba léegi dans le cadre de la CEDEAO loi boobu réew yi ñu ko séqal yépp kenn ku ci nekk dafa jëloon engagement ni dina def euh, loi sur la santé de la production Sénégal def ko comme ñépp wande li ciy coow ci suñu réew moo di loi boobu dañ ko jël ba pare teg ko ci tirwaar yi amul benn décret d'application moom pandémie Covid 19 bi la seetlu nañu ni ba mu amee ba tey lépp lu jëm ci wàllu santé de la reproduction ak li nga xam ne moom mooy planification familiale dañ koo xaw a néewal mu nekk jafe-jafe yu bari ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi Sénégal ak itam Gambie soxna ya nga xam ne ñoom ñoo fay dund te ñu wann lor nag ngir ñu dem ca kër docteur ay jafe la bokk na ci li ko waral moom moo di yoon yi nga xam ne baaxul nag ñuy jaar ak itam yeneen di jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy jànkonteel bokk na ci li nga xam ne moom moo di ñàkkum ndox ñu teelu reportage Boubacar Fall Bopp ak itam Omar Ndiaye. li ko dalee Médinatoul Salam 2 Pathé Thiangay Pathé Tukulër Beyti Kër Babou ba Kër Alifana dëkk yooyu yëpp dëkk yooyu yëpp ak yi bootu ci seen ginnaaw jafe-jafe yoon la am noor rawatina nag jamonoy nawet. gis ngeen fi ñuy jaar yoon yi naka la mel fii Babalon la yoon bi ndox mi daf koy dagg-dagg yu métti mi ba loolu indi nañu ay jafe-jafe yu bëree bëri bëri Babalon la boo xam ne daal indi nañu jafe-jafe yu bëree bëri bëri daanaka foo aw bu demee da yàqu mënatoo fa awaat pont pa daaw bi ba nga xëy dañ ko nuqi daanaka ñu tamit feeñ ci gox boobu dem ba laal poste santé ba nekk ci kër baabu nga xam ne jamono ji ambulance tumaranke nañ ko lool ci ay sareet sax la ñuy mujj di rawale seen i malade des fois dañuy fi am ay difficulté yu bëri pour évacuer si malade des fois dañuy wut ay sareet wala ay oto ñu leen jàllee boppaate alors que bu ñu fi amoon benn ambulance dinañu mën a dimbale ñàkk ndox moom nekk na problème boo xam ne moom daanaka askan bi yëpp ñu ngi koy jooytu parce que santé amul ndox ci ci la ñuy crotté des fois da ngay am malade guddi da ngay am problème ndox. loolu wala sax jamono ji programme bi di Puma jot cee yor loxoom nar leen a gunge ci ay jumtukaay ak yoon. dafa nekk programme bu mag boo xam ne président de la république monsieur Macky Sall moom moo ko créé problème yi dëkk yu sori yi am programme bu mel ni Puma ñëw régler problème yooyu. lu tolloog ñeenti milliards ak lu teg lowaa waa Puma na ma dugal ci ay koppar ci boobule gox ngir fànq jafe-jafe yi yi ñuy jànkoonteel ci boobule tund. ginnaaw yi saafara ci jafe-jafe suuf ci diggante aussi ak itam jikko mbool nag ci commission nationale bu dialogue des territoires mu mel ne nag jiit bu bokk moomeel bu aussi nag xam ne rek ne du xaatim benn yoon li nga xam ne moom moo di mémorandum final bi ba tax itam askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci aussi nag ñenn ci ñoom di rafetlu bu baax a baax lu nu mel dañuy teewlu ka nga xam ne moom la ñu dénkoon seen i ay kàddu mu daal dañu koy jottali. ñuy parce que ci suñu communication passé passé ne nañ leen ce n'est pas le maire de la commune d'Oussouye mais nañ ko gisee comme doomu village Oussouye dëgg la am na benn rassemblement boo xam ne ki def nañ ko cap ñu ngi gërëm ñoo xam ne ki initier nañu noonu ak cër bu ñu jox département Oussouye mais ci biir loolu ñu ngi koy interpeller ñu ngi interpeller suñu maire bi pour que mu gën a mu leeral askan bi xamal leen lan la ci soxla lu tax document bu ñu te foofu lu tax moom signé wu ko parce que document boo xam ne ki mënu koo signer parce que xamul ci ban contexte la ñuy defee document boobu quelle est l'approche bu ñu defee ci document boobu loo xam ne ki xamuñu objectif document boobu loo xam ne ki tamit ci ban support la ñuy basé wu suba pour réaliser ce ce document donc ñun dañu ne loo xam ne ki population bi jëlagu ci en charge xamagul lu fa nekk yow nga dem nga signé ko ba pare nga dellu si pour door a wax ak askan bi dañu ne loolu vraiment ànduñu ci te monsieur le maire Edouard Lambal comme noonu la def. ñun ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm parce que ça allait engager tout le département ci loo xam ne kii vraiment xamuñu le tenants le contexte et les aboutissements ndaw yu euh, Sédhiou Kolda ak itam Sikicoor ñoom ñooñu nag ñoom manko doon wenn say ñu daal di leen di tàggat bokk na euh, ci li nga xam ne moom moo di moo ko waral nag fexe jëm kenn kattan ngir rek jàmm gën a sax ca foofee nga xam ne moom moo di ca Casamance waaye itam diggante bi gën a rattax ca diggante euh, MFDC ak itam nguur bu Sénégal Bakary Konté ak Xaali Jàmme mat nañu 500 jeunes yoo xamante ne ñu ngi si région Sédhiou Kolda ak Ziguinchor ñoom nag ñoo bénéficié mission formation bi lee jot na tey ñun ñu ñëw jege suñuy waajur pour jàppale leen pour xool naka la ñu war a def pour tey jàmm Sénégal mën a am ak yan recommandation la def pour tey ñu mën a am jàmm mais également dinañu rencontrer état au Sénégal pour wax ko tey ndaw lu ñu xalaat mais également lan la bëgg si ñoom euh, ñu bëggee seen taxawaay mu am mais ak toutes les autres organisations internationales aussi dinañ leen rencontrer pour waxtaan ñoom si ndaw lan lañ gisee jàmm ji ak activités yi xam ne war nañ ko orienté objectif boo xamante ne organisateurs yi moom la wax mooy négociation. nit ñaa ngi si liggéey te gëm naa ni euh, su fekkee ni ñaar ñi nga xam ne ñu ngi ja ñoo ngi jàmmaloo ñoom itam wax nañ ñëpp ni àdduna bi yëpp ni ñoom bëgg nañ jàmm ak salaam donc dañ leen di gëm rek ni bëgg nañ jàmm salaam boobu te ñun ñi nga xam ne ñooy organisation euh, yi nga xam ne ñooy liggéey ak euh, association yi ak OSC yi itam ñun itam ñu ñu jël leen si li ñu wax ñu ñu liggéey ak ñoom ànd ak ñoom itam dimbale leen ba ñu mën a am jàmm ak salaam boo xam ne retourné ndax nan ko wax askan bi moom moo si gën a souffrir te moom nañu war njëkk euh, euh, teg si kanam pour mën na agsi si jàmm boobu ñu ñu bëgg euh, ñu ñëpp. ndaw yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou di ne économie bu nekk fii ci Casamance dafa am ay tolof tolof lu ko waral mooy ay conflit bu nekk fii ci diwaan bi ba tax na dañu bëgg jàmm dellu si pour économie daal di relancer wu. ndaw Casamance warul mun a jooy xëy ndaxte am nañ ay ressources am nañ ay potentialités. nga xam ne ni mun na tax ndaw Casamance toog Casamance liggéey Casamance njëriñ boppam njëriñ jabootam kon loolu mënul am tant que jàmm amul Casamance donc loolu moo tax ñuy ñaax suñuy autorités yi euh, muy mouvement MFDC euh, muy euh, gouvernement ñu gën a toogaat pas autour d'une pour que accalmie bi jeex mais jàmm ñëw définitivement pour que ñun ndaw yi aussi ñu mun a am xëy. centre pour le dialogue humanitaire ak association Kambeng Kafodine dinañu wëyal di amal activité yi mel nii loolu nag ah, pour jàmm dellu si fii ci doonu Casamance. jërëjëf Bakary Konté cant ak ngërëm ñala la ñu wax ci leneen nag doxub nemmeeku liggéeyuk village de Nations Unies nag ki nga xam ne ah, moom moo di directeur bu patrimoine bâti de l'État nag di rafet lu baax a baax lu nu mel la na maire Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb la dénk ay kàddoom. waaw maa ngi leen nuyu di leen euh, gërëm euh, dañ fi ñëwoon tey pour nemmeeku liggéey bi nga xam ne euh, opérateur envol immobilier mu ngi liggéeyal état du Sénégal pour tabax fii lu ñuy wax maison des Nations Unies ambition état bi mooy regrouper agence Nations Unies yu fi nekk yëpp donc ñu ngi toll ci fanweer ak juróom. defal leen fii benn genre village maison des nations unies euh, liggéey bi nag euh, mu ngi avancé bu baax en tout cas kontaan nañu ci état d'exécution bi promoteur bi respecté na engagement euh, yu mu jëloon parce que ci gros œuvre yi maçonnerie bi presque ñu ngi ci 60 pour cent donc yaakaar nañu incha allah fii ak fin année 2021 bi dinañu réceptionner projet bi projet bi nga xam ne Euh, projet phare la parce que amagul fii ci Afrique de l'Ouest projet bi nga xam ne aussi euh, day matérialiser en tout cas gis-gis président de la République Macky Sall. mbokki boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi léegi léegi ak rédaction bi euh, soxna Naata Mbay nag dina dikk ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy yi ak programme yi di leen ñaanal guddik jàmm